dëgg la ñi fi jotoon jël kàddu yëpp ñu si bari bari il y a six mois de cela ànduñu woon mais les ambitions moo indi loolu parce que ku nekk da nga yaakaar ne fa nga taxaw yow war ngaa mën a par des solutions étatiques ou autres régler li ñu am politique bi ñu toll nii mën ngeen kaa seetlu si ñun sax jamono yu ñuy campagne ñu ngi ànd ak karawaan yi musique fecc way mais tay so gisee lolou yeb ñu tekk feulé parce que c'est le Sénégal qui est en danger Sénégal nak dafa am fo xam su fa tollo il faut que ni bàyyi fecc ak way wàcc jakarlo ñi ni waxante deug ñi ni dañuy xëccio parce que dañuy dem ay élections législatives pour fal ñan ay ndaw penchu réew mi ku nekk taxaw naan suñ ma falee dinaa def lii dinaa def lële amul benn député benn député bu mën modifier la loi de finances bu ñëw assemblée nationale te foofu la dig ba nekk. donc daf leen daf leen bëgg a rassurer rek ne loolu ñu ngi si assainissement bi ngeen wax c'est une réalité assainissement maire yi ko de kenn naa man état moy alal joy dougal mu nek ci souf te ken du ko gis te toujours ñu ne deful état bi yagul les deux les dernières années il a mis 10 milliards ici en assainissement mais zone bi nga xam nouvelle ville de Rufisque zone yi ngeen zone de combat la bu ñu et nous avons eu le courage de dire ça au président pour lui demander d'avoir un programme spécial pour Rufisque parce que Rufisque moko soxla encore avec nos résultats nous pouvons dire au président nous avons fait un score à la soviétique parce que soviétique nous doon def ay et je pense que l'état d'esprit qui anime aujourd'hui cette jeunesse très réfléchie doivent nous pousser quand même à donner ces résultats au président parce que nous, il y a le ay xale yoo xam ne ne kenn mënu leen dugal si ay wax yu ñàkk fayda ni ko Karim waxee mën na nañoo nekk si Sénégal un pays musulman un pays boo xam ne ne julli la ñu xam jaamu yàlla ñu ñuy wax ay boxu borom ñaari tur yi borom ñaari tur yi si ñoom la jekkee mais ñun xamuñu loolu. fii la ay président États-Unis ñëw ay premier ministre canadien mu ne leen sa débat là c'est pas ce n'est même pas un débat pour notre pays nanguwuñu ko tey nanguwuñu ko ëllëg loo am téye ñu bëgg toujours su élection jotee ñu indi sa débat mais il faut arrêter ce débat tey tëngëj ñu ni naan Massamba dëkkul fii Ndiagne Diop tëngëj la dëkk département de Rufisque la dëkk man Rufisque laa dëkk Seydou Diouf Rufisque la dëkk Omar Cissé Rufisque la dëkk mais dafa fi fanaan léegi soo demoon léegi route nationale gis nga muy ñibbi Sacré-Cœur 3 Et nous avons été ensemble dans des institutions ici. Boumoussé Adef, un mois Nous avons été avec lui, avec Badr Mamaya Sen. Mon adjoint au maire. Deux mois, trois mois, le siège à Il a été conseiller départemental. Pendant sept ans, Benyon le Monseigneur. Quand on a porté problème, si on a un Babou Salam, si on a un c'est ces mêmes gens-là qui étaient là avec le président Macky Sall ndax ñooñu bokkoon na si ñi en 2012 di wax dit qu'ils fi gën mais ils ont rek moo tax moo fi gën moo fi gën a bon. adduna nag su fekkee ku ñu fal baax nga ku ñu falul kii la di falee baaxul ma xam ne loolu du gor donc il faut que nous xool ñi ñuy tànn ñan la. même si nous avions une opposition qui voulait être à l'Assemblée qui voulait avoir un gouvernement avons signé un décret le décret c'est le président de la république Alors, du dualité c'est le pays qui est bloqué si le pays est bloqué mais peut pas subir salaire du dem dara du dem ñëppay nekk ci on coono boobu da nga donc c'est ça qu'il faut éviter à ce pays c'est pas parce qu'il y a eu des erreurs au niveau des élections locales que l'opposition se sent réagardée comme quoi fan lañ gagné fan lañu gagné tous ceux qui ont gagné ont gagné avec 22, 23%. Partout au Sénégal. Partout. Parce que nous étions divisés. Mais l'ol ça c'est une élection nationale. Et nous sommes sûrs de relever le défi. Surtout nous pour nous, refusque. L'ol fait le bon choix en continuant à donner cette majorité au président Macky Sall majorité boobu a la continuité de sa vision cette continuité qui voudrait que l'équité soit une réalité Vous avez 43 milliards le budget c'est de l'éco, les familles 80 000 francs dimbali na njaboot bërk dem rek def na donc le bari président mu nous, nous sommes nous nañu au soir du 31 juillet nous bokk ñun département de Rufisque si ñi di ko jox majorité waxuma commune de Rufisque Ouest de mais commune de Rufisque Ouest nekk la première commune ñu raw Sangalkam raw Bambilor raw ñëpp pour que ñu mën a taxaw ne président nag léegi nag kaay sunu cadre yaa ngi fi sunuy problème assainissement yaa ngi fi te ñaari at yi la dese bëgg nañ nga réglel ñu suñu problème yooyu loolu mooy suñu combat loolu lañu àndax le maire Aline Mar loolu lañu àndax Abdou Karim loolu lañu àndax tous les partis alliés pour faire un seul bloc nekk benn say pour que demain ñu mën a ne vive le président Macky Sall vive la commune de Rufus Kouès loolu laa amul lu may wax ngeen baal ma wax